société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec de presse ma ngay daw deuxième ci layo bi war a dox digganteem ak Ousmane Sonko ca kanam cour de justice bu CEDEAO réew mi quotidien mi xëy yeggee ñu ko nee na agent judiciaire bu état bu Sénégal moo sàkk ñu dàq àtte booba ba juróom-ñetti fan weeru novembre la ko waral AGE nee na mooy bërëb ba mu ne ca centre ville di fa liggéey courant daf fay coupé lu bari tax muy am ay jafe-jafe ci wàllu internet gannaaw booba lépp àtte ci xarala yu war a defee ku ne toog fa nga toog kon yëf yi du mën a sotti li si yeggee ñu càkkute fa agent judiciaire bu état bu Sénégal di ñu dàq àtte bi cour de justice bu CEDEAO war a tey seppi gi ñu seppi Ousmane Sonko ci liste électorale yi ak partem di Pastef gi ñu tas càkkuteef googa nag Yoro Moussa Diallo mi ngi ko wékk ci courant ak internet buñ sukkandikoo ci les échos mi nu yeggee tontuy avokaay Ousmane Sonko ñi ne xel xalaatul ñuy nangul loola agent judiciaire de l'état wax ñu fekkati ko ngay ñaawlu li agent judiciaire de l'état wax te muy wax yi teguwut fenn neenu bëgg-bëggam du leen lu dul may cour suprême mu daal di àtt yëf yi ba nuppi ñu soog a dem ca cour de justice bu CEDEAO Juan Branco ci libération yokk xar mi karaw ne agent judiciaire de l'état li mu wax sax gàcce la te itam luy tuutalaate la moom ak yeneen awokaay Sonko yépp ànd nañu gàntal ci àkkuteefu agent judiciaire de l'état booba yéene kaay bi ne kon tey ci talaata ji cour de justice bu CEDEAO dana àtte Ousmane Sonko ak état bu Sénégal àtte booba nag Sud Quotidien nee na enjeu yi na lool sax yéenekaay bi nee na ëttu àttekaay war naa àtte Sonko ak ci fukk benn mbir yu nu jàpp ne danu caa salfaañe àq ak yelleef Ousmane Sonko waaye yéenekaay baa ngay fàttali yeneen dogal yu ëttu àttekaay bi jëloon te état bu Sénégal ci njiital Macky Sall lanq sàmmonte ak moom loola tax ñàkkul Walf Quotidien naan Ousmane Sonko kalaame jamu kalaame ji ci cour de justice bu CEDEAO da caa janoo ko bés bi feelu ko ne ko ëllëgëm ci wàllu politique moo aju ci boobaleb àtte aju it ci dogalub Sénat ak bi ne Sénat sax daal dinay jébbal démb tontoom avocat Ousmane Sonko ak direction générale des élections cour de justice bu CEDEAO moom tey koy xaar ci seppi gi nu seppi Ousmane Sonko ak tas gi nu tas partem di ay avocaam kalaame ji ci ëttu àttekaay boobale ñu des ci mbiram Ousmane Sonko ndax rapport médicalam bi ñu fi fësaloon bés bi nee na ñu ngay di ca jàpp ay nit Fatima fekk ji na Amadou Ba bu Pastef Vox Populi ñoom ñaar ñooña ñoo fay kaas yi Juan toj ndax ci yéenekaay bi ma nga naan lépp mooma nee na moom mooy ki fësal document yooya yor yor bi ne Branco moo toj fay booba jamono coowal dàqub élection yi Boubacar Camara yëkkati fayagul ci les échos Abdou Karim Fofana ministre porte-parole du gouvernement ma nga naan ko élection présidentielle moom xel xalaatul ñi di ko dàq ñaar fukki fan juróom weeru février atum daanu tëgg yooyele élection waaye Boubacar Camara moom wàccul la mu ngànkoon ci les ma nga tee fa mu tee naan élection yi dañ koo war a dàq ndax Sénégal parewut ngir woowa élection am fi élection yi dafa war a am xel xalaatul ñi di ko dàq lii mooy tontu way politique yu bareek yeggeenu ko yeggee ñu waxtaan wu njëkk wu Aliou Mamadou Dia candidat wu PUR muy dellu si ci parti PUR ak na mu fa nekkee militant dellu si ci tànneef gi Serigne Moustapha Sy def ci moom ngir mu doon seen candidat ci élection présidentielle bu 2024 Mamadou Lamine Diallo njiital mouvement tekki it candidat la bëgg a doon ci boobaleb élection ci biir laas ma ngay wax li waral mu samp ndëndam nee na bëgg-bëggam bu njëkk mooy delloo Sénégal gëddam Amadou Ba moom laas ne ma ngay wéyal tournée politique ak économique bi muy amal ci réew mi bi ma ngay seen boppam ca kanam jiitu gaañi sànni karawaas ndax nee na jàpp na ne ci premier tour lay gañe booba lépp élection ñu des ci journalu Madiambal Diagne bi xëy yeggee ñu kàddug lew naña seen xalifa ba di ñaawlu xew-xew ba amoon ca Kaolack ne kenn amul foo ko mën a teg ci diine Mame Mactar Gueye bu Jamra ci Vox Populi ne diine kay dafa sax ñaawlu loola xew ca Kaolack yéene kaay bi ne tegawum nañ ci loxo ñeenti nit xalif bu lew naña seen ne taqewunu ci mbir mi te ñoo ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem le témoin ne nu Sénégal bi ñoo ñaawlu la xew ca Seydi Gassama ci libération ne jëf yooya ñaawteef gi foo ko natt weesu na ko jëf ju bon tey wàccee nit njiital Amnesty ci Sénégal nee na mooy la xew Kaolack ka ñu jàpp ne moo ne ca yëf ya libération nee na xam nañu kana waaye fi mu ne daa daw yeneen ñeenti nit journal bi nee na teg nañu leen loxo gannaaw ba nu xoolee vidéo ya moom bi mu xoolee Sénégal gannaaw jëf ji daa gis ne ñoo ngi waaja dugg ci guuta l'observateur yi dafa taxaw seetlu ci ñàkk yërmande ak ñàkk muñalante gi ci réew mi jël lay la xew ca Kaolack ñu ne sénégalais ci boppam ñoo soppeeku ci seen nekkin ak seeni jëfin réew mi quotidien it xëyiti ci mbir mooma nenu jëf ji ñépp a ngi koy ñaawloo fu ne xamal ñu ci geneen wàll it ne Senelec ma ngay def jéego yu am solo jëm ci ñépp am courant fii ak atum 2025 ballon d'or 2023 bi réew mi quotidien nee na Lionel Messi mooy ki ko jël muy juróom ñetteelam gunu ko jox démb Sadio nag bokk na ca ña teewut woon ca xew ma buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien stade ne Messi mi jël juróom ñetteelu ballon d'oram démb samp na boppam ci taarix kenn dootu ko fàtte le soleil mel ni ku naan ñu président Macky Sall jaloore ca championnat du monde de football dalal na leen démb jox joueur bu nekk juróom ñaari million bu sukkandikoo ci yéene kaay bi yéene kaay bi di sunu lamb la ñuy jeexale mu xëy ci Modou Lo tuddee ko machine de guerre dëgg ndax nee na roi des arènes bi fu mu dajeek waa Pikine defal leen bagaas mbooloo tam sunu lamb nee na Modou Lo la ñu bëgg ñu dëgg foofu sunu tànk ñaanal leen kendal ak jàmm ba ëllëg incha allah. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec